noonu la ñuy jàngee waaye dëkk bi nekkul ne loolu la soxla. dëkk bi mu ngi soxla ay borom métier. dañu war a gën a jàngale métier jàngal nit ñi tam loo xam ne dina tax ñu mun a defar ay mbir loo xam ne dinañu mun a wàññil ñun suñ problème yi. understand nga mooy dañ am war a jublu ci science education hmm. ci maths education ak yooyu nga xam ne fa nit di mun a sukkandiku ëllëg pour mun a defal dara wàllu xarala waaw ba hmm. pare dañ war a jàngal nit ñi ñu am métier yoo xam ne mooy njëriñ réew mi jàngal électricien yi jàngal ñiy ñiy liggéey ci yëfi yu sedda ah ngelaw lu sedd ak yooyu mooy air conditioning ak yooyu hmm. jàngal nit ñi ay carpentry jàngal nit ñi ay defar moto ak affaire yooyu xam nga ñun dinañ am problème bu mag ci ci at yi ñëw nii parce que moto yi fii ñëw léegi yëpp électronique la ñaata nit a ko fi jànga ok xam nga soo soo njàng mi. dañ ko war a jublu ci saafara problème yi nit ñi problème yi askan wi. xam nga loolu lañ jàngalewut moo tax fi mu ne. dëkk bi fii luy kapenta sénégalais luy luy tayoor sénégalais euh, luy defarkati mbuuru guinéen ana Gambie suñ loxo moo tax suñ ndaw yi moo tax suñ ndaw yi ñuy sonna fi mu nekk absolument laal nga nag point bu am solo ndaw yi euh, boobu tamit nekkoon na mbir buñ bugg a wax waaye kii daf ma yóbbante ñu ne ma ko si education bi laay wax euh, mu ne ma laaj la ko mu ne our education system in the Gambia is weak so much that it is hard to differentiate a graduate of university to an advanced international private school now how is he going to structure the curriculum to mitigate the mindset of Gambians to excellence. xam nga leen la. suñ buggee suñ jàngkat yi mel ni jàngkat yi yeneen réew. waaw dañoo seet ñoom li ñoo def ñu def lu mel noonu waxuma ne exactly. lu mel noonu de dañoo seet lu ñoo def ak nañ koo defee. Mm-hmm. ñu seet ci loo xam ne dinañu njëriñ ñun loolu lañ war a def. Mm-hmm. ñun. yeneen réew yi fi ñu toll ak ñun fi ñu toll du benn ñun ñu ngi ci ñu ñu ngi ci jamono tabax yeneen réew yi dañ leen tabax ba pare ñun bon war nañoo jàngal suñ nit ñi ñu doon ay tabaxkat waaye suñ amut ay tabaxkat bon dañoo am pour jëlee tabaxkat yeneen réew pour ñu ñëw tabaxal ñu suñ réew looloo tax suñ ndaw yi amuñ liggéey ñun ci jamono tabax réew lañ nekk yeneen réew yi fi gaa yi toll ñun eggaaguñ fuufa so ñun dañ wara a tabax so suñ jaar jàngal nit ñi ñu doon ay tabaxkat su fekkee ne ñun ñi ñoo jàngal yépp ñu nge ñu ay history ñu ngi leen di jàngal ay english ay literature kanay tabax réew mi nga jàpp ne loolu doxul ah, solo mm-hmm. réew moo gis loolu ci solo waaye ñun ñu ngi xalaat lan moo gën a jàmpa pour ñun lan moo ñoo jëlee fii mhm. yóbbu ñu fële ñun ñu ngi ci tabax réew nañ ñu jàngal ay tabaxkat xam nga just imagine law school bi university bi dinañ graduate ñaata ñaata law students hundreds ñaata tabaxkat la ñoo graduate ci at bi five mhm. so ba naka la ñoo tabaxee réew mi lawyers yooyu sax duñ am liggéey su yàggee loges yooyu duñ am liggéey kanaay dem ci ñoom parce que liggéey amul ci réew mi looloo tax liggéey amul looloo tax mbir mi doxut xale yi dañ leen war a bàyyi xel te foog indi xale yi ñu bokk ñu toog ca fañoo décider mbir mi mhm. ñu bokk ci ñaay décide mbir mi indi ci xalaati xale yi bugg a bugg xale yi nama nama xale yi ak xale yi ni ñoo gisee mbir mi bon mbir mi du mus di dox pour xale yi moo tax man kere buñ ma yàlla defee ñu jox ma ñu óolu ma bi jox ma réew mi xale yi dinañ leen ci boole dina am mag dina am ñu nekk ci digg bi dina am xale yi dina am góor dina am jigéen dina am gambien ñu dëkk ci biti dina am gambien ñu nekk fii su ko defee ñun ñëpp ñu boole suñ xalaat liggéey lu rafet pour gambien ndax réew mi dem kanam esafan politicien bi baa ngi noonu <laughs> noonu rek lañ mën a tëjee jotaay bi ndax <laughs> soobu na ci géew gi ñu du ma politicien man I am just authentic <laughs> ñu ñu gërëm ko bu baax euh, ci ni ñu wuyu soo euh, kontaan nañ Uh, we can't just thank you enough ci time bu ñëw waxtaan ak Gambien si leeral points yu bari uh, ñu gërëm la ci ni nga ñëwee ci jotaay bi ñu bàyyi rek su amee kàddu yi nga bugg a tëjee jotaay bi yóbbante ko Gambien si ak ñi nga xamante ne tey uh, bugg nañoo jàpp ci ci combat bi ba tey yéene bi nga am ci réew mi nga matal ba ci élection yi ñoo ñëw ñu gërëm la bu baax a baax. wax neexut. di lu ñëpp. Mm-hmm. ñoo xam ne wax ji ma fi wax ñenn ñi gis nañ ci lu ñagas. man utuma ci lu ñagas utuma ci wax kenn lu ko neexul utuma ci mhm. xaste oo ŋàñña kenn ah, yaakaar naa ne waxuma fi la dara lu demee noonu ah, li tax ma wax lii rekk mooy ne mhm. ah, ñun suñu réew dafa am fu tollu toll fi mu ne mhm. mooy ñun ñëpp dañ war a jàppante doon benn xam ne suñ bëgg bëgg yi utee na linggena mhm. waaye liñ gën a bëgg ñun ñëpp mooy réew mi ñu jiital réew mi jiital njëriñ réew mi ba pare teg tegee boor ñun ku ci nekk li nga bëgg a bëggal sa bopp anda cek ñun ñëpp duñ mhm. ñun ñëpp duñ bokk bëgg bëgg ci ñu xel dal ak yar ak respect loi bi ah, ñu jongante ci élection bi mhm. ku ci nekk jox sa morom cër bi nga ko war a jox ñun ñëpp Gambien lañ ku ci nekk buggante ngir ñun ñépp Gambien lañ ah lenn la de ah, mun nañoo xëccoo waaye it war nañoo mën a xëccoo ci anam boo xam ne rafet na ku ko gis xam ne ñii day wone nañ yëfi kilifa. def nañ jëfi kilifa. Mhm. ñun ñëpp ñu jàppante nekk benn. Mhm. man dama gëm ne. waaw ci jongante bi ñëpp ñi ci nekk man gëm naa ne ah suñ ma joxoon réew mi. Mhm. bu soobee yàlla dinaa def lu raw ñëpp ci ñoom waaye terewut. ma nar nangu ne ñoom ñëpp ku ci ne bu bugg na réewam bugga goo xam ne buñ ko ko joxee dina def kéntalaayi kàttanam loolu gëm naa ko kàttan yi nag ñoo utee man gëm naa ne su ma jaar-jaar ak su ma xam-xam tax na ba man ëpp naa leen advantage waaye loolu tam gisin la rek man su ma gisin la nekkut ne dama ci xas kenn nekkut ne dama ci wàññi kenn jongante la ku ci ne dinga ñëw wone ne ah man de fii laa mënee te lii lee tax ma munee foofu mhm. ku ci nekk ñëw wan wone fam munee ak la ndax tax mu munee foofu su nit bonee xam-xamam ak fa mu ne taxut ma ne loolu xaste la ci man ma ne su ma génnee wane fa ma mënee ak fa ma xamee ak sama jaar-jaar hmm. taxul mu doon xaste ci keneen ma bugg askan wi xamee ko noonu ne man utuma dara lu dut li ma gëm ne moo gën ci réew mi te ut ko ci anam boo xam ne dafa ànd ak yar ak teggin ak gëm luwaa bi jaar ko ci comme ni ko luwaa bi waxee loolu laa gëm mhm. loolu laa xam te képp a xam ci loolu la ma xamee politique nag mhm. jongante bi njuuj njaaj yi wax ju ñaaw ji tuumalante gi yaxante der bi daf ci dee bari may ñaan politiciens yi yëpp nag ne nañ leen bàyyi xel ci li ñuy def xam nga nga toog doon kilifa am sa nit si sa kër muy génn di sànni xeer kër kenam kër keneen ah, su ko defee benn yoon mun ngaa ne yëguloo ko nañ la jégal mu defaat ko nga ne ah bii day betta na ma nañ ko nañ ko jégal su ko defee ñetteelu yoon bi dafa mel ni xam nga ci dara mbaa buggoo cee xam dara te su boobaa yit loolu du doon jëfi kilifa ñun mi nga xam ne ñooy candidat si jiitu nañ edda suñ nit ñi nekk si suñ gannaaw eddal leen ci njub eddal leen ci am yar eddal leen ci def li nga xam ne mooy Gambien mooy ku ci nekk nga jox sa morom cër nga respect ko hmm. xormaal ko tarangal ko waxuma ne ñun ñëpp dinañ mun a ànda de ñun ñëpp duñ mun a ànda waaye ñun ñëpp mun nañoo joxante cër ba nga xam ne mbir mi du ñaaw ah loolu laa amoon pour wax mbokka mi ñuy déglu jërë ngeen jëf